so mu ngi défendre ñu gis li nga xamante ne xew na les échos ngay avocat déjà di défendre droit de l'homme mais aussi nekk acteur politique bëgg noonu aussi un commentaire sur l'affaire les échos oui Chérif bu ngeen may ma avant ma dugg ci waxtaan bi ma su suma njaal ci professeur Moustapha Soura mhm. parce que soxnaam maam jaara ñaar génn na àddina bu yàgg. Mm. ñuy ñaan yàlla xarala ko àjjana moom rakki maam Baasin woon. te man xam ngeen ne maam Baasin. waaw avocat. Mm. donc ma amoon vraiment. demlante mm. ak dikkalante ak moom ci boppam. soxna am ak euh, euh, comment dirais-je mm-hmm. donc nit koo xam ne nit ku yiw la. Mm-hmm. doomi soxna la. ni mu ñëwee woon daal la deme dans la discrétion am na fi ay responsabilités yu bëri ah, nekk na fi ministre nekk na fi sax ministre de la justice mais bu la ko waxul sax doo ko xam mais ñaan yàlla xare la ko àjjana ah, di fëddale aussi sama njaal ci Babacar Touré mm-hmm. ak ci Bamba Ndiaye mm-hmm. Bamba Ndiaye mm-hmm. euh, li nga wax Chérif euh, dama koy ñaaw parce que dans un état de droit kenn du fajal sa bopp dafa justice yii amoon na fi xam nga amoon na fi ay Walfadjri ak yooyu. Mhm. mais man de foogoon naa ne dépassé nañ loolu. Mhm. ñëw vraiment journaliste bind loo xam ne naqari na la yoon may na la foo ko joytoo mhm. mais ñëw yónni ay nit wala ay nit jógal seen bopp dem saccager quand même un organe de presse loolu dama koy ñaawlu dama koy condamné je crois que la justice fera son comme loolu moom d'accord naa ci ak sama jigéen bi Aïssatou mm. il faut vraiment des sanctions exemplaires mm-hmm. pour que bu mu nekkati ci xelu kenn mm-hmm. euh, dem ci ay organes de presse di ko saccager di yàq seen liggéeyukaay loolu ñun dañ koy ñaawlu mm-hmm. euh, évidemment Aïssatou wax na léegi mais je crois que le ministre de la communication kàddoom jóg na ci son directeur de communication wax na ci. Mhm. mais dañu nekk ci dédommagement aussi yi bu amee justice mooy rendre décision. Mhm. wax ñi nga xam ne fixer montant pour dédommager li nga xam ne moo yàqu. Mhm. mais c' est pas l' état c' pas. am na ay mesures am na ay mesures urgentes. loolu nous sommes dans un état de droit bàyyi mm. justice def liggéeyam. dinañ. ñi nga xam ne ñoo def jëf jooju. Mm-hmm. nañ leen teg loxo te je mm-hmm. crois am na ñu ci teg loxo ba pare. Mm-hmm. nañ leen atte dañ leen wax li nga xam ne yàq nañ ko ñu defaraat ko. Mhm. condamné leen à des dommages intérêts. Mhm. te bu fekkee ne c'est à matière correctionnelle bu ñu ko deful sax da leen def contrainte par contre ñu dellu. mais li flagrance la non n'est-ce pas flagrance la. Ah, normalement ah kooku nag bàyyil enquêteurs yi. ñoom parce que nag ñëw. parce que dama jël temps quand même. ñu ay sama booy ñëw. waaw dal sa kaw mhm. yàq ay locaux. loolu flagrant délit mm. la. flagrant délit mooy loo xam ne lu teew la. Mm. am solo nee nga ko ne état de droit la nekk. lii bu amee quand même au delà de ñu bàyyi justice mu def liggéeyam. Mm. aussi kilifa yi nga xamante ne ñoom lañ dénk kaaraangeeg askan wi. waroon nañ leen gën a dégg nee ministre bi communication. def na communiqué de la communication mais est-ce que ça ci lii parce que fi ñu frappé quand lan laal. kër boo xamante ni parce que ay xabaar la. foo xamante bu dul rek yéene bi mais ni ñuy informé ci ay waruñ koo soofantal mais je crois que il y a une désapprobation unanime mhm. vraiment journaliste yi wax nañ organisation yi wax nañ le ministre de la communication wax na le directeur de la communication wax na et je crois que tout le monde s'est indigné mhm. maintenant on n'a qu'à laisser la justice faire son travail et donner vraiment des sanctions exemplaires voilà euh, léegi dañuy dem ci euh, wàllu bi nga xam ne ay sanctions ñu ko doon wax sànq surtout ci wàllu euh, coronavirus bi ñu nekk. Mhm. Euh, gis ni euh, état bi c'est vrai wàññi na restriction yi lu bari bari bari mais quelque part aussi ñu bari dañu gis ni. Mhm. relâchement bi nan lañ koy waxati. état bi dafa mel ni dafa bàyyi loxoom carrément. démissionné rassemblement fi mu doon am yëpp seen yoon nekkatu ci port de masque yi pare. alors que la situation de notre côté mi ngi gën a doy chaque jour ñu bàggee ay nit yu bari. waaw effectivement euh, Diawo wax nga dëgg mais je crois que état bi mosul bàyyi loxo. mais wàññi je crois que président de la république bi mu waree wax ak askan wi à chaque fois wax na ak askan wi. mais dama def affaire partisan bi mu jëlee ay li may wax nii. waaw daf yu ñi fi toog yëpp mun nañ ko seede. inventé wu bokk dëgg la le président de la république. wax na ak askan wi ñaar wala ñetti yoon. ñu waree wax ak ñoom. bi mu waree jël ay mesures jël na ay mesures. bu ñu wàññee transport interurbain bi bu ñu waree tëj jàkka yi tëj école yi tëj université yi def na ko bi ñu waree jox askan wi lu ñu lekk ay daare alimentaires def na ko bi ñu waree teg comité boo xam ne moo ko war a saytu def na ko bi ñu demee ba nga xam ne nit ñaa ngi étouffé ba nit ñaa ngi commencé révolté ñu war a def ale assouplissement mhm. def na ko ñu def assouplissement ne nit ñi mu loolu leen teg seen biir kër joxoo leen ñu lekk joxoo leen ñu naan il faut que ñuy doxi seen soxla waxuñu leen ñuy doxantu ji waxuñ leen ñuy dem ci plage. di fa football. man loolu dama ko constaté. waxuñ leen ñu kër di ataaya. loolu président de la République mosu ko wax. dafa ne ku am soxla. mais bu ko mu am nag. maa ngi ciy ñëw ay déglu ba rek. waxu leen. Mm. ñuy doxantu. waaw waxu leen. ñuy bàyyeeku. waaw assouplissement pour que ñu vivre en présence du virus. loolu la wax. non moom avec la avec ko interprété mm. autrement. Mm. wax nga responsabilité je crois que président daal bi moom. il s'est comporté comme un général. li war a jël ay mesures jël na ay mesures. dafa am ñoo xam ne dañu war a appliquer mesures yi. muy les populations. population yi ñoo bàyyeeku. ci mesure yi. Sénégal nag man jàngat bi ma ci am liir naa ñu bëri. psychologue yi liir naa leen yi ah. liir naa hmm. mais dañu nekk ci réew mu doy waar. Hmm. suñ askan wi moom lenn rek moo tax. Hmm. moo war a tax ñu ñu ñuy appliquer mesures yi ñuy jël mooy ñu ruus la wala ñu ragal la. waaw kon loolu ko ruus la pour ñu ragal la état bi. bu ñu ruus la ko def dama ne ñi nga xam ne ci réew mi ruus nañ leen. il faut ñu dugg ci xeex bi wax. kilifa diine yeeg yooyu kilifa diine yi ci jiitu. ay bàjj bu baax ñi jiite ay association ñu crédible la ñoo xam ne bu ñu waxee ñu déglu leen parce que am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu waxee seen wax dafa yàqu mais ñi war a wax nañu wax ñi nga xam ne bu waxee ñu déglu leen nañ leen wax dañ leen rus mais ñooñu il faut ñu impressionner maître il faut ñu yëf yi démb loo bokk loo bokk ci

décision yi mu waroon jël jël na ko ñi ko war a appliquer ñoom la ñu war a. mais bu ñu ko appliqué wul nag bu ñu ko appliqué wul euh, maître Ousmane. dama leen di wax mu mu reserewaat la il faut ma fàttali leen leen leen depuis le début. Hmm. bi nga xam ne Covid bi ñëw na fi bi président di jël mesure dafa responsabiliser l' administration territoriale. waaw gis nga chaque gouverneur. Hmm. dans sa région am na droit am sañ-sañ jël ay mesures. yoo xam ne c'est des mesures spécifiques à sa région. bu ñu xoolee tey ci fu mel ne ay Tambacounda Kédougou nga xam ne dafa nekk ay frontières ak yeneen dëkk nga xam ne nit ñi dañuy jogee ay yeneen dëkk di dugg di dugg fii di fi indi am nañ droit fermer frontières yooyu. Mhm. gouverneur ya fa nekk. Mhm. rassemblement yi ngay wax noonu mais am nañ droit un préfet wala un un gouverneur. taxaw ne rassemblement yi dañ ko loolu laa wax ne moom lañ war a def parce que ñaari yëf ñaari yëf dama ñaari yëf ñaari yëf dañ ci war a taxaw port du masque. Mhm. dafa war a nekk obligatoire. accompagné de sanction. exactement rassemblement dañ ko war a. interdire muy dëj. dëgg muy ngénte. muy ay po ay dem ci plage bi du football. football ci mbedd mi ak noix de dañ ko war a aaye avec des sanctions. mooy deuxième condition bi may wax ci sénégalais. Ah. mooy ragal la. Mhm. maanaam mesures yi ñuy jël yëpp. Mhm. dañ ko war a taxaw appliquer ko mu accompagner de sanction. voilà ko deful ñu amaan la. kaso sax mun la cee fay comme obligatoire. Mm. d' après l' arrêté du ministre de l' intérieur ci lieu public yi. Mm. d' abord il faut nit ñi am masque yi. Mm. mën cee jot. deuxièmement mooy aussi sanction yooyu nga wax parce que dans certains pays dafa dem ci wàllu koppar duñ la yóbbu sax kaso. mais dañu jël amande teg la ko. mais loolu fii gars yi boo seen poste amaan leen yenn taay boo bëggee recouvrer amende bi doo xam fu ñu dëkk ak yooyu. mais nañ ci def amende ba pare def ci ay peine ay peine d'emprisonnement. mais état bi ma ne ko defee ci yenn yi maa ngi gis Moustapha Diakhaté wax na ko solo la man gis benn commentaire maanaam rapport bi nga xamante ne waa CNRS def na ko. Hmm. préservatif yi nga xamante lu mat 17 millions fu ñu ko mën a séddale masque je pense que moom mi nga hmm. xamante également farata loo xamante war a dim séddale ay nit parce que lii question jot ci masque yi hmm. man depuis le début je crois que dégluwuñ ma wala bokk dañ àndul ci la ma wax dama ne la lutte contre la maladie la c'est une lutte éminemment politique mm-hmm. c'est pas une lutte sanitaire c'est une lutte politique économique et sociale mm-hmm. gis nga bu campagne amee mm-hmm. homme politique yi di ñuy def di defal ay t-shirt di ko maye di dugg fu ne di wax ak nit ñi. Mm. mais man gisuma ko ci maladie bi. dëgg la am na ñu doon joxe ay masques. dama ne. c'est vrai loolu. dañu war a def une mobilisation. au niveau des partis politiques et des coalitions du. pouvoir comme de l'opposition mmh. comme campagne ñu def campagne xam nga li ñuy wax communication communautaire maintenant on mm. parle de la communication de l'engagement mm. mais loolu il faut que politique yi dugal ci seen loxo mm. les partis politiques les les coalitions politiques mel ne dañuy dem jongante ak feebar bi ñu dem di jongante ay élection nañ ko jongante ak feebar bi voilà waaw kenn justice bi mooy grève sudiste bi yàgg na parce que ëpp na ay weer a nii démb am na audience yu bëri yoo xam ne amoon na ay délibéré ñoo xam ne waroon nañ leen létt wala ñu firi leen mujjul am ndax rek greffier yi danoo grève mm. yow mi nga xamante yaa ngi tribunal nu ngeen ko dundee ak seen i mais sonn mm-hmm. xam nga euh, grève bi du ma dugg sax ci lu ko waral ak yooyu mm-hmm. parce que fépp fu am liggéeykaay am na jafe-jafe te mm-hmm. grève aussi moo tax loi bi daf ko reconnaître mais grève bu amee dañ ko war a faj naka lañ koy fajee parce que depuis le mois de mars justice liggéeyu parce que ci lañ dugg ci Covid 19. Mhm. bi ñu demee ba yëkkati état d' urgence bi au mois de juillet. Mhm. mais ci la juste mhm. en grève ça fait plus de deux mois. askan wi sonn nañ. parce que am na ay audience yoo xam ne amatul ñun avocats yi liggéeyatuñ. ensuite décision yi mënatuñ ko jot. te problème bi mooy boo remplacer greffier yooyu ak ay ay ay. ay loolu lu garaaw la pourquoi parce que après. bu grève bi jeexee greffier bu ñëwee ba jëlaat seen. seen seen place du ñu du ñu du décision yooyu nga xam ne. Ah. ñeneen ñoo ko defoon. ñoo ko defoon doo ko jot loolu il faut aussi. aussi ah, mu leer boobu ah, c'est un autre aspect. mais communication boobu ñoom waxuñu ko. waxuñu ko waaw bii moom ko dégg parce que ñun ay xam ne ba léegi ñu ko jot. Mm-hmm. parce que greffier dañ daan comme ñun. defuñu ko defuñu ko te ko ba pare jox la ko. Mhm. bu juge rendre décision greffier bi moo koy délivrer. mais mhm. juge mënu la ko délivrer. mais sa gis-gis lan moo war a solution bi alors euh, solution bi moi je crois que. li li bon ci grève mooy ñàkk c'est-à-dire que parti bu nekk bu kàmbee say position kenn nanguwul def concession kenn nanguwul waxtaan. Mhm. grève bi du jeex. mais ñoom euh, rencontré nañu une la Malick Sall euh, euh, amul amul issue heureuse au début sax problème bi ma nekkoon moom kan ban ban ban syndicat lay recevoir le le ministre la. waaw moi je crois que le dialogue social defoon na ay efforts yoo xam ne dañ ko ciy féliciter. Mhm. pour rassembler parti pour ñu waxtaan. Mhm. mais je crois que waxtaan ba antuwul. bu mu découragé mais yeneen bonne volonté parce que grève bi dafa impacter d' les avocats ñun askan wi la représenté. Mhm. je crois que le corps de l' ordre war na ci dugal loxo. déggul mhm. je crois que l'union des magistrats du Sénégal. Mhm. war na ci dugal loxo. parce que ñun ñëpp la justice est rendue au du peuple sénégalais. te peuple bi ñoo sonn fi mu nekk nii ci grève bi. donc grève bi man quelles que soient les causes. problème bi mooy na dakk parce que quand les problèmes sont bien posés il y a toujours des solutions nañ fexe ba ñaari parti yi daje mhm. waxtaan mhm. ku ci nekk li nga nga bàyyi dara comme ça mooy je demande même au président de la République mais de mhm. parce que ñun ñëpp quand ay ay ay ay problème mu texte lañ nañ teg président ministre de la justice nee na par exemple jël nañ ay texte yoo xam ne mënuñu ko appliquer ñu Ismaïla Madior Fall jëloon non il y a la principe de la culture de l'État loolu duñ ko remettre en cause mais bu fekkee dañul ay texte yoo xam ne mënuñ ko appliquer peut-être lui aussi il a ses raisons mm-hmm. pour dire que texte yi mënuñ ko appliquer mais nañ ko waxtaanee mm-hmm. nañ ko teg teg teg fii def commission maître xam nga yaa ngi wax médiateur loolu day indiwaat beneen débat parce que ay jamono grève woon nañ fi à l'époque c'est le premier ministre qui les avait reçus mm-hmm. jamono ji Sénégal amul premier ministre muy posé waat débat wu suppression poste premier ministre pertinence ba waaw loolu tax ma ne nañ teg benn médiateur parce que c'est le président de la République aujourd'hui qui est responsable bu ko neexee. mu choisir benn ministre comme médiateur bu ko neexee. waxuñu loolu choisir une personne comme médiateur non non non non non man je crois que le président de la république. moom mooy seet li ko doy. bu toogee ba supprimer le poste de premier ministre il a ses raisons. maître donc moi je ne vous reviens pas. yaa ngi en direct maa ngi lay xool parce que loolu am na fi. yaa ngi en direct maître am na fi. mais yaa ngi yaa ngi mais su premier ministre. ko mais président Macky Sall toog na benn moment bu supprimer le poste de gouvernance bu sentir la nécessité. bu ma bàyyi nag l'avocat du diable moo nekk l'avocat du diable la ñu bàyyi nag l'avocat du diable. dina ko indi mais da ngay toog fa parce que c'est très important loolu mooy affaire justice boobu parce que am na idée yuy génn ñu ne ñu ngi bëgg a. waaw waaw di greffier yi ba sax jamono ji CFJ muy centre de formation judiciaire ñu ngi tàggat ay agents pénitentiaires ngir mu remplacer greffier yi. moi je crois que la solution c'est pas la répression. Mm-hmm. grève bu mm-hmm. mm-hmm. personnaliser grève euh, ne da ngay da ngay da ngay réprimer wala yooyu. waxtaan mooy saafaraal grève. li nga xam ne moom lay revendiquer nañu toog waxtaane ko. parti bu nekk am lu mu bàyyi. ñu dellu parce que. li ñu war a jiital. mooy mhm. Sénégal et la justice. waaw ministre bi nag est-ce que agent pénitentiaire mën nañoo remplacer ay. directeurs non option. Mhm. man gaw ma ne ay militaire ak ay gendarme ki hmm. ay at ku ci nekk da nga am sa métier. sa métier dëgg la administration pénitentiaire dañ leen di dénk ay prisonniers. très bien qui ne sont pas formés pour être. jërëjëf jërëjëf maître donc nañu waxtaan. ñaari parti merci ñu jiital Sénégal jiital la justice trouver des solutions dans l'intérêt peuple. merci merci beaucoup euh, euh, bëggoon nañu euh, eggale waxtaan bi mais dafa mel ne waxtu bi dañoo xoj waxtu. <laughs>